mbokk yi sant leen gërëm leen ci seen àndaax ñun si rajo Rewmi FM nuñ koy defee dimanche bu jot jàpp 16h ak ci émission gox bi tey ñoo am ci gan nag di dalal ki nga xam ni moom moo di Moussa Fall nekk président mouvement Sénégal sunu yitte nekk itam responsable ca politique ca diwaanu Grand Yoff Moussa ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci émission gox bi fii si rajo Rewmi FM. merci beaucoup monsieur Dramé Euh, di la remercier ci invitation bi et di la gërëm encore ci opportunité bi mi ngi ñu may bi <laughs> mun a ñëw vraiment échanger ak euh, auditeur u rajo euh, Rewmi FM mhm. di profité ci occasion bi di nuyu le président Mbagnick Diop mhm. di ko féliciter bu baax mhm. ñëw nañu gis nañ Euh, vraiment initiative yu am fii di gërëm tout le personnel de Rewmi FM et di nuyu auditeurs yi ak sénégalais fu mu munti nekk et di tamit nuyu étranger yi nga xam ne ñu ngi dund ak ñun. Mhm. Euh, di wax ne euh, ñi fas yéene rek euh, weccoo. Mhm. ci mbiru gox bi incha allah. Mhm. alors Moussa Fall dañ koy daal di dooree ci li nga xam ni moom moo jëm ci Covid 19 bi ndax xam nañ ni mënuloo wax te waxuloo ko. ndax moom moo lëmbee jamono. absolument alors tey sensibilisation bi fan la toll tey ci diwaanu Grand Yoff. waaw xam nga Covid bi euh, dafa doon euh, loo xam ne dafa ñëw bett àddina yëpp. Hmm. vraiment parce que tamit euh, lu kenn xaaraloon la. di ci masawu nag sénégalais bu ci nekk. Hmm. ñi nga xam ne tey feebar bi dal leen ñi tane. Hmm. ñi nga xam ne tamit ñi ngeeg feebar bi ñi ngi leen di masawu vraiment di wax ne mbas bi bu mu duggee ci àddina bi rawatina ci Sénégal. dafa bett ñëpp gis nga tey gis na façon feebar yooyu ay Ebola ak lu bëri. Mhm. dafa doon faral di jógee ay feebar yoo xam ne Afrique la doon juddoo. ñuy wax feebar yi yu mel ni ci feebaru africain la mais bii tey gis nga ci première puissance mondiale ci la génne mooy Chine ci mois de décembre yi donc euh, li ñu ci seetlu mooy réew yi nga xam ne tey jël dañ jëloon à la légère euh, Covid bi. Mhm. Euh, vraiment bu mu fa duggee vraiment sonal na leen mooy États-Unis gis nga discours bi président njëkk def. Mhm. par rapport au Covid France. li ñu def donc je pense que ñoom mbir mi bi mu duggee ci ñoom bett na leen. <laughs> parce que xaaruñu ko woon mais tey ñun au moins Sénégal euh, dañ ci profité di féliciter le gouvernement sénégalais. <laughs> parce que tey jël nañ ay mesures yu ñu waroon jël à temps. <laughs> Euh, bi mu duggee ci ci réew mi. gouvernement bi teel na jël ay mesures pour sécuriser askan wi. tëj frontières yi fexe jël ay mesures. pour fexe ñëpp taxaw. pour jël des mesures barrières pour xeex euh, mbas mi donc loolu dañ ciy féliciter président parce que tey xam nañ suñu premier cas mooy sunu cas importé donc mm-hmm. euh, Sénégal cas yi njëkkoon am ci Covid bi ay cas importé la mm-hmm. mais président ak gouvernement bi xeex nañ ak le ministre de la santé mm-hmm. ba ñuy fexe ba faagaagal des cas importés donc am na ay diir dañuy dégg ay cas contact ak cas communautaire mais jotutuñoo dégg cas cas Euh, importé. donc loolu tamit taxawaay bu gouvernement njëkk am la. mooy jël matuwaay yu war. pour tëj suñu frontière fexe ba feebar. dootul jóge ci bitim réew di ñëw di dugg ci réew mi. fexe euh, vraiment ba taxawaay boobu tamit dañ ci remercier le ministre da la santé en l'occurrence Abdoulaye Diouf Sarr et le président de la République. taxawaay bi ñu bari dañ ne relâchement daf ci am. askan wi demoon nañ ba jël xeex bi def ko seen xeexu bokk waaye mm-hmm. li ni mel bañ ne ku nekk nañ dund virus bi nañ dund ak virus bi mm-hmm. li ni mel relâchement commencé say am mm-hmm. bon c'est-à-dire euh, loolu dañuy gën a euh, amaat dëgër daay dëgër daay ba léegi fi ñu toll nii euh, daf ci am benn catégorie sénégalais ba léegi pour ñoom gëmuñu ne feebar bi am na c'est-à-dire bu ñu yeggee ba ay 167 décès waaw donc ah. ba léegi sénégalais yi gëmuguñu ne ne feebar bi am na <laughs> te parce que tey soo xoolee bi feebar bi juddoo ci àddina euh, ñi nga xam ne ñoo ŋànk mbirum faj ci àddina bi <laughs> newoon na bu duggee Afrique vraiment dina ci def ay loraange yu bëri bëri <laughs> bëri donc ñoom loolu la ñu prévoiroon yàlla mu musal nañ ci ba Afrique amaguñu tolluwaay boobu parce que tamit euh, soo xoolee dëkk yi mu gën a sonal mooy dëkk yi nga xam ne seen population dafa xaw âgé mooy réew yu mel ne tugal France États-Unis euh, daanaka feebar bi bu jàppee mag mag daal la dul baal donc ça montre que ñun en Afrique surtout au Sénégal on a une population mais bàyyiwul itam ndaw ñi de on a une population très jeune euh, donc maintenant xam nga des nit dina am benn feebar bi di ko doxalee te du ko xam. donc loolu mooy sunu danger. ci mm-hmm. réew mi. Mm-hmm. mooy ñi fexe ba jeunesse bi nga xam ne tey mun nañu am feebar bi te du du feeñ ci seen yaram. Mm-hmm. ñi dem dugg ci biir kër yi di ko wàllu parents yi. donc je pense que li ëpp solo ba ëpp solo. mooy ñi taxawaat ci sensibiliser askan wi. pour que ñi bàyyi xel feebar bi ko feebar bi feebar bi lu am la. feebar baa ngi ci réew mi. ñi fexe euh, respecter les mesures barrières. ba fexe ñu fexe xeex. feebar bi parce que tey prévision yu ñu euh, président joxe woon. Mhm. dañu waxoon fii ak septembre. jàpp naa ne mhm. feebar bi dana fi jóg mais à mhm. vraiment jàpp nañ ne mun na romb mois de septembre okay. donc il faut ñu euh, ñaaxaat askan wi ñi sensibiliser ñi xam ne wax dëgg yàlla euh, président taxawaay bi mu am def na ko mais tey il fallait que tamit ñu jóge ci état d'urgence mun a tijjiwaat euh, frontières yi comme gi mën a dox yëkkatiwaat mbir yi mhm. bàyyi askan wi doxi seen i soxla mhm. mais tamit ku ci nekk nga bàyyiwaat sa xel ne feebar bi mi ngi fi mhm. ñu fexe dund ak feebar bi euh, waxuñu ñi ñi moytante waxuñu ñuy dawante waxuñu ñuy beddante waxuñu ki am feebar bi ba tane. Mhm. waratuñ bokkaat ci dund bi. Mhm. mais ku ci nekk nga xam ne feebar baa ngi fi. Mhm. nga jël say matuwaay ba bu ëllëgee ku ci nekk jàpp ne sa bopp yow yaa war a xeexal sa bopp feebar bi mu jógee fii. d'accord yow itam euh, leader nga ca euh, commune bu Grand Yoff. ndax euh, dalay euh, da ngay wàcc ci terrain bi rek euh, di joxe say contribution maanaam ci li nga xam ni moom moo jëm ci kit yi masque yeeg di ñaax askan wi itam képp koo xam ne bëgg nga dem fenn foo xam ne te defoo fa dara nga toog sa kër ndax yéen message bi yéen a ngi am retour bu bu baax ci li nga xam ne moo jëm ci sensibilisation bi. waaw xam nga xam nga tamit situation bees. Mhm. stratégie yu bees. Mhm. parce que feebar bi bi mu duggee ci ci réew mi. Mhm. daf ci am ay mesures yoo xam ne. ñun suñu wàllu bopp ci ñun la war a gën a tàmbalee. Mhm. mooy dañu waxoon ñi toog ci kër yi. ñi ñi aye ndaje yu yaatu yi mhm. ñi aye jokkalante bi mhm. mais moo taxit tamit lépp lu ñu doon def ñu tamit dañu am stratégie bu bees stratégie boobu mooy lépp lu ñuy def jëmale ko ci askan wi day doon loo xam ne duñ ko fësal parce que tamit feebar bi utuñu ci duñ def politique politicienne je pense que li ñu gën a ëppal solo mooy ñu sensibiliser askan wi fexe ba yee leen ci taxawaay bi ñu war a am kenn ku ci nekk. Mhm. pour feebar bi mun fi jóge mhm. parce que tey feebar bi dafay lore. Mhm. lor na ci mbiru wér-gu-yaram mais day lore économiquement. te tey ñun Grand Yoff am nañ ci ay cas mais ay cas. communautaire lañ ci am. Euh, natt nañ ko ci nouvelle cité yi. am na ci Grand Yoff bu mag. donc dugg na ci ñun mais tamit euh, yéex na dugg sa biir Grand Yoff mhm. parce que euh, daw nañ ay weeri weer mhm. euh, vraiment ñi soog am ay cas mhm. Grand Yoff mais yàlla tamit musal nañu ci ba wax dëgg yàlla ni mu waroon toll toll ko te fépp fu mu am ci Sénégal tamit day mel ne Grand Yoff la am donc xeex bi benn xeex la donc du xeexu Grand Yoff xeexu Sénégal la xeexu àddina la parce que tey am na Sénégal yu bari yu nekk ci bitim réew fenn fu ci nekk gis nañ ay centaine de more mhm. des sénégal yi nga xam ne feebar bi moo leen rey ci bitim réew. Mhm. donc jàpp naa ne feebar bi dootul xeexu Grand Yoff kese mais xeexu mhm. àddina bépp la. donc day wone rek ne le monde maintenant est un petit village. donc feebar bi wane na ne Sénégal àddina benn bopp la quoi. léegi ci xeexu coronavirus bi. comme gis nañ ni kaa communautaire yi mi ngi law. est ce que mun ngi teg itam benn ripost communautaire ngir xeex ko cas communautaire yooyu nga xam ni ñoom ñoo sonal nit ñi léegi jamono ji waaw xam nga euh, euh, des cas communautaire la ñuy wax. Mhm. donc il faut avoir une commun communication de proximité. Mhm. il faut que je pense que ñi nga xam ne tey euh, ñoo ci waroon taxaw. Mhm. mais dama lay expliquer rek. bi président de la république soxla parrainage. mais ñaata la coalition boo ko Yaakaar déposé ci parrainage. ah bëri na de. waaw donc man ak sama moroom ak keneen ak keneen. mais tey ñun waroon nañu mën a utiliser. Euh, ñu mun a taxaw taxawaay boo xam ne hmm. danañ mun a wax ak askan wi parce que tey dëgg la chef de quartier mi ngi fii hmm. bàjjenu ngor mi ngi mi ngi fii hmm. mais tey ak relais yi ak relais yi ñu ngi fii mais tey bu ñu écarté des hommes politique je pense que waroon nañ euh, dugal leen ci dynamique bi euh, jàppale leen dooleel leen pour que ñu mun wax ak askan wi. parce que tamit ñoom tamit am nañ ñu leen déglu ñu leen déggal ci gox goxaan yi. waaye euh, je pense que ñu bañ ko def affaire politique politicienne. doo mhm. soxlawuñu ko. Mhm. mais je pense que foofu tamit mhm. xawoon nañu lajj ci côté boobu. bàjjenu gox baax na. nijaayu gox baax na relais communautaire baax na mais tey dama jàpp ne. képp koo xam ne yaa ngi am taxawaay politique. Mhm. je pense que bu ñu leen woowoon waxtaan ak ñoom gën leen dooleel. Mhm. ñi mun a yegg ci askan wi wax ak ñoom gën leen yee. Mhm. parce que bu dee fukki nit sax ñi ngi sama ginnaaw. su ma waxee ak ñoom ñu wax ak fukki nit. waxaat fukki nit dana doon mbooloo boo xam ne ci gox bi danañ ci def. donc je pense tamit euh, kenn ku ci nekk. yaa ngi dem ak say moyens bopp ak euh, sa xam-xamu bopp di jéem a xool naka nga mun a taxawee dugal sa loxo ci xeex bi parce que xeex bi kenn moomu ko xeex bi ñëpp ñoo ko war a euh, ànd sumbandoo ko xeexandoo ko daan ko parce que tamit euh, lu ñu mën a fexee teel rek mu jóge fi moo gën ci réew mi ni nga ko waxee am na solo nga ne parrainage ba mu jotee Benno ah Bokk Yaakaar yëpp a jug indi ay parrainage yu am solo léegi ndax yow tey initiative bi ngi mel hmm. pare nga pour jël ko ci biir Grand Yoff buñ la dooleelee mais mais absolument dama joxe une lecture politique je hmm. pense que Euh, xeex bi tey parti politique bu ci nekk coalition bu ci nekk ba nga soxla ay parrainage da nga dem uti ay parrainage mm-hmm. donc loolu c'est c'est c'est c'est c'est des contacts mm-hmm. c'est des contacts de proximité mm-hmm. parce que nit ki ba nga ko parrainé da ngay dugg ci salon wax ak moom mbaa nga dugg ci marché yi ku ci nekk dugg wax ak moom n'est-ce pas donc je pense que ñoom tamit dañu war a doon ay relais. comme ay bàjjenu gox. Mm. dañu war a doon relais. comme ah, chef de quartier jàpp ni jokkalante bi parce que tamit kilifa politique bu ci nekk ci goxam. Mm. am na taxawaay bu mu am am na ay nit yu ko déggal. Mm. donc ñooñu bu ñu leen écarté loon dugal leen ci mbir mi. Euh, mbir mi dina baax. Mm-hmm. donc seul Y. Mm-hmm. bi nga wax relâchement bi. Mm-hmm. mooy dañuy féliciter président parce que gis nañu euh, commencement mbas mi bi mu amee. vraiment woon opposition bi. ñëpp ñëw fekk si ba ñenn ñi di ko ŋàññi tamit ñenn ji ko ŋàññi. Mhm. opposition bi tam ñoo jox ko bopp di leen di remercier ci loolu tam di leen féliciter. Mhm. mais euh, jàpp naa ne. Euh, sama mbokku mbengeen yi. Mhm. ak sama mbokku jegeen yi. Mhm. dépp bi waxi ceeb amee ci le relâchement commencé. <laughs> ci le relâchement donc nit ñi. Mhm. seen xel damatul ci ay mesures barrières. ña ngay seen xel yëpp. moo doon dañuy def ba jot ci ceeb bi diwlin bi suukar si. donc loolu tamit bokk na ci lu ëpp. lu ëpp ci lu indi relâchement. ci xeex feebar bi parce que le premier combat et le seul combat. c' était de lutter contre le Covid. c' vraiment de sensibiliser les populations. Euh, à les barrières moo ëppoon solo fuuf fuuf mais depuis bi ñu gisee président dam port ceeb bi ñëw mhm. nit ñëpp léegi ay waxi dund la ñuy wax waxi dund mhm. seen xel dematul ci feebar bi mhm. donc loolu bokk na ci lu relâchement yi euh, premier lu indi relâchement ci population bi donc di ñaaxaat askan wi ne leen que ñu soit vigilant nañu fexe ku ci nekk yaay jëlal sa bopp sa responsabilité bopp parce que président li mu mënoon def def na ko ba tëj frontière tëjee tëj na ko ba ñu war a jël ay mesures pour euh, fexe indi ay restitution ci nit ñi xeex xeex nañ hmm. bi mu waree yëkkati tamit euh, tànkam hmm. ci ay état d'urgence parce que déglu na askanam hmm. xool na askanam dafa ne jot na ñi mun a tijjuwaat yenn mesures yi bàyyi askan wi dem liggéey parce que tamit xam nañ Sénégal on a une économie informelle. Okay. donc président ñu ngi koy. remercier di fàttali mbokk auditeurs yi rek ñuy dalal tey ci euh, gox bi ki nga xam ni moom moo di Moussa Fall nekk leader politique jiite itam mouvement sunu Sénégal sunu yitte nekk itam leader politique ca diwaanu Grand Yoff. alors tey daf ñuy may rek comme junj na ko mbiru ceeb yi ñu bari ñu ngi ko doon xaar nee nañ ceeb yi dañu yéex ndax constat bi ni mel moom lañ fa nemmeeku Grand Yoff itam di fàttali mbokk auditeurs yi mun nañ dugg ci waxtaan bi 88 le 628 84 84. 24 wala 88 628 85 85 wala 88 628 86 86 ceeb bi distribution bi ndax am yéexul constat bi ni mel Grand Yoff lan nga ñu ci mën a wax. bon du ma ne yéex na. d' abord damay saluer. 4 mois 3 mois. gars yi di xaar du lu yomb mhm. du lu yomb xam nga fi ñu toll nii acheminé. Mhm. du riz de l'huile du savon et des pâtes. Mhm. sur cinq cent cinquante communes du Sénégal c'était pas du tout facile. j'avais un plan d'organisation ni ñu ko war a lancer sur le plan d'urgence mhm. ku war a indi jënd ceeb bi ku war a jënd diwlin bi tout ça tous tout tous ces gens là mhm. du woon peut-être loo xam ne taxawoon na taxaw donc euh, c'était pas du tout facile donc euh, vraiment euh, c'est ça a pris du temps. Mhm. Euh, si président président avait donné un délai de quinze jours. Ah. mais mais mais c'était pas du tout facile. c'est cinq cent cinquante communes. à acheminer des denrées et puis. j'avais des recensements à faire dans chaque commune dans chaque commune il y a des sous-commissions dans chaque quartier il fallait du travail donc je pense que d'abord saluer la générosité du président de la République parce que euh, comme on le dit c'est une première ah c'est une première c'est que le président a dit defee beneen fànn waaw waaw donc euh, ñun xalaat boobu sax am nañ ko ci waaw mhm. boobu boobu laa gënoon rafetlu man mooy ban man jàpp naa ne mhm. euh, tey li ñuy def ci transport ci xaalis def ko ci logistique daf ko ci ci leneen loo xam ne tey ànd naag joxe ceeb bi. Mhm. suñ ko defoon par transfert Orange Money ou Wari ou tout ça. Mhm. je pense que ce sera beaucoup plus économique. Mhm. et je pense que ci lay ëpp sa. Euh, solo askan wi teel ko jot. ñu jël auditeur bu njëkk salaamaaleykum. allo oui salaamaaleykum. sëñ bi ñu ngi lay ziar bu baax tur bi ak foo ñuy woowee. waaw tur bi moom président Omar Faye président du mouvement du développement. président Omar Faye ñu ngi lay nuyu di la ziar di la dalal jàmm ci émission gox bi. di kontaan si yéen waa réew mi. jërëjëf merci. parce que ñun Grand Yoff moo ñu yor te tey da ngeen invité ku mat. Mhm. ku am cër. Mhm. biir Grand Yoff. merci. li muy wax yooyu daf ko gëm. Mhm. c'est pas aujourd'hui. Moussa maa ngi lay gërëm di la sant. merci beaucoup Omar. di la wax sa sa sa sa li ngay def Grand Yoff ñun ñëpp xam nañu ko. merci Omar parce que ñun ñoo nekk biir Grand Yoff. Hmm. yàgg nañ fi trop. Hmm. waaye yow politique gisewuloo ko ay saagante. Hmm. yow politique da ko def rek kon ni ko gars yi di waxee politique c'est l'art de gérer la cité. bokk ndey bokk baay. xeebuloo kenn. tey nag waa mi FM moom. su ma leen mënoon andil gâteau sax ma andi leen merci beaucoup te dinaa leen andil gâteau parce que teraanga du wees hmm. parce que da ngeen ñu invité sama xarit absolument donc di leen wax Sénégal ñoo ko bokk hmm. li mu leen wax noonu si affaire feebar bi am na solo parce que dëgg la bajjeen bi wax gox baax na jaay gox baax na mais ñun ay leader politique la ñu biir Grand Yoff hmm. Moussa am na am na ñoo xam ne Moussa la xaar mu wax am na ñoo xam ne Omar Seye la ñuy xaar mu wax mais ñooñu nag il faut ñu oo leen ñu impliqué leen. Mhm. mbir mi gars yi dañu passé à côté en tout cas au niveau de Grand Yoff affaire bi du mu waroon jàll jàllewu noonu. Mhm. parce que ñu ñu war a waxal waxuñu ak ñooñu waaye yàlla ñun suturaal nañu nag Grand Yoff moo ñu yor mhm. ku si nekk yaa ngi dem ak sa moyen bopp comme ni ko Moussa waxee et loolu dafa am solo may wax ni que dara jeexul parce que feebar baa ngi fi ba léegi jeexagul donc nañ si impliqué li ñu si war a impliqué doxal mbir mi. sinon loo amoon lu ma bëgg a wax. Mhm. merci Omar. jàmbaar maa ngi gërëm di la sant Moussa Fos. merci merci beaucoup Omar. yàlla dina la jàppale parce que nit ku baax la. merci beaucoup merci jërëjëf. jërëjëf kon dañu laa mm. dañuy permettre rek ñu continuer ci ceeb bi yéex nag yéexul wax ji bëri woon na proposé nga fi ay solution tey ci Grand yof comme commencé ngeen distribution li nga xam ne moom moo jëm ci dund bi euh, fa ngeen ci toll wala pare ngeen. waaw daanaka Grand Yoff mbir mi pare na. ñëpp euh, am nañ. waaw dañ ciy sant yàlla ñuy war a am am nañ. <laughs> et je pense que Grand Yoff euh, on touche du bois. coow amuñu ko fa. waaw amuñu fa parce que tamit c' est de de remercier le maire et de le féliciter mm-hmm. parce que tamit euh, bët jamonoy xel quoi. Mm-hmm. taxawaayam moo rafet ci ci ci doxalin bi. Mm-hmm. parce que tijji na commission communal bi. boole ni ni ci ni ci war a boole. moo tax Grand Yoff dégguñu coow foofu amul benn coow. amuñu benn coow parce que moom ci wàllu boppam. jël la mbir mi dénk ko adjoint au maire Edwige Gomis qui a fait un travail extraordinaire man mi nga xam ne tey maa ngi Grand Yoff boo bokkoon ci liste yi nga xam ne dañ àndoon ak Khalifa Sall taxawu Ndakaaru di xeex man tànn na ma ci boole ma ci commission bi boole ci mel ne maître Ousmane Seye ak un représentant Cheikh Tidiane Ndiaye de l'APR et tout ça donc dafa tijji mbir mi boole ci parti yëpp ñu ñëw toog ci commission bi xool la xew man mi wax ak yow man saytu man mi wax ak yow jàppuma ci loxo nit ne ko joxal ma nit ceeb. Mhm. man pepp ceeb dugul sama kër. donc ca commission ma laa toog xam naa ne liggéey ba sell na set na. Mhm. te gisuñu benn cow Grand Yoff. Mhm. képp koo xam ne tey waroon nga am du maire moo lay jox. 66 quartiers moo am. 66 quartiers bu nekk dañ fa def sous commission. sous commission boobu chef de quartier bi moo fa nekk imam bi ak représentant église bi. ñu dugg ci quartier ba xool képp ku ko yeyoo ñu bind la. ni jox la sa quota yóbbu ko ca école ya boo gën a jege gox bu nekk école ba mu gën a jege ñi bàyyi ko fa jox ñi ñu war a jox donc je pense que Grand Yoff boobu ba léegi séddale nañ ña war a am am nañ te gis dégguñu ci benn coow ñi ngi ñaan yàlla euh, réclamation amul non non non mais xam nga dina am ay petits détails yoo xam ne c'est travail de terrain mhm. peut-être ci sous commission yi la ku ñu fàtte wala ku ñu demee noonu nest pas mhm. et puis dañuy ñaan euh, initiative bi maire amoon parce tey commune bi. Euh, bëggoon na euh, jàppale. Mhm. askan wi mais bi président na rek indi moom ci wàllu boppam dafa ne woon day bàyyi. Mhm. ba président joxe ba pare moom mu soog a toppaat terrain bi. ñi nga xam ne ñi nga xam ne jotuñu am. Mhm. mu jéem leen jox. te comme ni mu ko waxee jàpp naa ne dina ko doxee noonu. yéen ko ciy xaar comme li nga xam ne war na ko jox askan wi ci gafak mairie bi. Euh, te ngeen jàppale woon ko ci li ni mel. moom yaakaar ngeen ko dina ko génne. jox ko askan wi ko def. Mhm. parce que incha tamit xale la bu am pas-pas ci ci ci goxam wax dëgg yàlla. Mhm. alors euh, mbir mi di wéy gars yi di toog di xaar tey ba ba ñu yegg si fii am nañu woon sax ne mbir mi dafa yéex xaaroon bi yàgg nga yaa ngi doon wax processus bi tey est-ce que mën nañ xam Grand Yoff xam nañ ñëpp dajul ñëpp mm. amuñu mm. mais est-ce que itam yéen a ngi xaaraat deuxième loo bu ñëw ngeen mun leen ko jox ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi waaw xam nga président dañ koy sant mm-hmm. bu baax ci initiative bu mu am xam nga bi mbir mi amee mm-hmm. wax dëgg yàlla am na générosité euh, génne ci gafa gi mm-hmm. plus de soixante et quelques milliards jëndee ko dund jàppale askanam loolu je pense que tamit dañ koy rafetlu yàlla moom mi mën a jox ñëpp sa joxul ñëpp daanu dajul fépp waaw président li ñu ko mën a gërëmee mooy ci initiative bi dénk na ko ay nit. Hmm. doxal nañ ku ci nekk ci ñu war a jot jot nañ. Hmm. li ci des nag moom dañuy jubluwaat ci liggéey. Hmm. ku nekk utiloo dundee. parce que tamit euh, réew mi dañuy xam ne dooleem bëriwul. dooleem bëriwul di remercier. képp koo xam ne tey jàppoon nga ci xeex bi parce que gis nañ société civile gis nañ euh, vraiment euh, réew mi ku ci nekk indi sa participation jàppale président pour fexe Euh, ñi mun a génn ci situation bi. Mhm. donc euh, fi ñu toll nii daal. on vit avec le Covid. Mhm. et on dañu war a indiwaat nag beneen taxawaay bu bees. Mhm. mooy naka la ñuy dundee après Covid. Mm -hmm. après Covid nag Sénégalais waaw waaw donc ci loolu loolu la ñu war a jublu. alors ñu gis benn mobilisation yi nga xam ne dañu boole AIC yi. Hmm. comme ñu def euh, li mel ñu duppee ko nawetaan Covid. Hmm. alors tey yow nga bokk. Euh, ci commune bu Grand Yoff nga nekk itam leader of mm. leader politique mm. alors initiative bi ni mel tey nan nga ko gisee yow euh, li nga xam ne moom moo jëm ci xeexu coronavirus bi def ko li mel ni nawetaan waaw mais xam nga li ma lay wax rek euh, rafetlu initiative boobu nawetaan Covid. Mm. loolu yëpp dafay laal proximité xam nga nawetaan soo ko xoolee c'est par quartier. kon ñu ngi ñëw li nga doon wax waaw maa ñëw li nga doon wax. Mm-hmm. moo tax toujours sama président Omar Faye. Mm-hmm. xaw nañu wàcc yoon bi mhm. parce que tey bu ñu waxee navétane Covid. Mhm. Euh, c' est très important parce que la proximité je pense que y a le professeur Djibi Diakhaté bu ci mhm. yëngatu avec la commune. au niveau de Grand Yoff exemple boo xam ne sax fa la juddoo. vraiment ay yeneen commune di ci jël exemple. donc c' est très important loolu mooy fexe rek ba impliquer la jeunesse. parce que jeunesse bi tamit am nañ solo. jeunesse bi def change koñ bu ci nekk nga am taxawaay. dugg sa gox xeex ba am zéro cas. di Covid sa gox. te je pense que xale yi ñu ngi ci terrain bi. Mhm. ñu ngi fexe def le maximum possible. Mhm. pour dugg ci quartier yi pour wax ak askan wi donc xeex bi euh, kenn ku ci nekk. je pense que mhm. dafa war a doon sa xeexu bopp. mbir mi nekkatul au niveau central c' au niveau local. c' est au niveau très très très bas. mooy ci kër yi la war a commencer ci comportement yi la war a commencer ci kër yi génn ci mbedd bi. fexe ba nit ku ci nekk foo munti nekk nga bàyyi xel. Euh, feebar bi. Hmm. parce que feebar bi du ngelaw moo koy joxee wallante la boo foo toog ak nit takkal sa masque. Hmm. may ko un mètre seen diggante. Hmm. de raxasu. del moytu mbooloo bu bëri. donc je pense que loolu kenn ku ci nekk. yaa ci mun a bàyyi sa xel. mais sama am na mbokk yu bëri dañuy jàpp ne feebar bi amul. soj soj kese la siburu la mais feebar bi feebar bu am la. c'est nag li ñu may chance. mooy dañuy am askanu bu doon askanu xale. moo tax feebar bi mënuñu sonal bu la fekkee nga yore yenn feebar yi. du la baal kon euh, xale yi mun nga ko am. Mhm. te doo du feeñ ci yow. nga dugg sa biir kër. ci lu ndaw nga wàllu ko sa maam wala sa yaay wala sa mbokk boo xam ne am na feebar boo xam ne mu ngi ci moom mhm. su ñëwee dina ko sonal mhm. te tey gis ngeen ne tey dem nañ ba suñu hôpitaux yi mhm. malade xajitu fa dafa saturé ñi ngi fexe ñi toog ci kër yi ñu leen fekke foofu di leen faj donc situation bi mi ngi fi na Sénégalais yi gën a conscient feebar baa ngi ci biir réew mi mais tey mënuñu fexe bañ a doxee suñu soxla parce que président a très bien compris tëj nañu frontières yi transport interurbain amatuloon. Mhm. mais lan la impacté impacté na chauffeurs yi impacté na ñu bëri sax yàq na lu bëri. Mhm. il fallait que ñu ñu lever ces mesures. Mhm. Euh, couvre-feu heures il fallait que yóbbu vingt parce que même bu fekkee nangul ni sax pression moo tax mu dellu ginnaaw les restauration non pression c'est que Covid bi la population waaw oui. tout fait normal parce que on a une population qui vit de du jour au jour. Mm-hmm. Sénégalais bis bu nekk sa dépense suba sa denc loo ko. Mm-hmm. da ngay xëy. dem xar sa matt pour mun a lekk pour mun a nan oui donc boo ko tëjee une semaine hmm. donc on ne peut pas parler de confinement hmm. confinement mënu loolu am Sénégal parce que nit ñi dañuy xëy dem lijjanti pour mun a lekk hmm. donc je pense que comme li nga wax bu ñu duggee ci taxawaay boobu ci naka la war a taxawee ci Covid bi ak ban jàngat lañ ci war a am da war a fexee ñi xoolaat suñu bopp parce que tey jàpp naa ne loolu moo am solo xam ne moo di lii euh, place publique yi. Mm. dafay gën a mit est-ce que tey waruñu accentuer wu ci euh, domaines yi marché yeeg yeneen i seen gër wax ak askan wi ndax euh, boo rombee ci marché yi day mel ni tamit coronavirus amul de. absolument absolument donc. c'est dire hein, parce qu'on va un peu transiter sur l'après-Covid mhm. dire ce doit apprendre lan la war a jàngat ci Covid bi mhm. Covid bi je pense que tabaski digle suñu borom la mhm. mais yàlla suñu borom dafa teel a wax ne tabaski soo mënee nga def soo mënul bul def donc mënuñu jógee ci trois mois yoo xam ne ay jafe-jafe la donc Sénégal yi dañ di woo rek ñu am beaucoup plus de mesures ci fête bi parce que tamit euh, tey am na taxawaay boo xam ne Sénégal bu ci nekk. mun nga bégal sa njaboot daf yooyu mais ñi ñi bàyyi xel ne jamono neexatul. waaye ñi bàyyi xel ne jamono tabaski. ci lu bari tabaski. Mhm. deux heures bu jotee fàtte nañ tabaski bu regaay ree xarit deux heures ba kiis fàtte donc am na ci yoo xam ne. Mhm. daf ko jaratul. waaye fet la bu ñu diglee soo mënee nga def soo mënul tamit nga def li nga mën. Mhm. parce que après les problèmes son la le quotidien est là. Mhm. donc je pense que il faut qu'on essaie de changer certains comportements. taxawaay bi après. Covid bi lan a doon ci wàllum koom. waaw yow mi nga xam ni am nga tuuti euh, euh, xam sa xam màcc na tuuti ci wàllum koom. taxawaay bi nan lañ ko war a euh, tegee wala nan lañ war a taxawee ci wàllum koom après Covid bi. li gën a mën a nekk. Mhm. dafa am ku doon wax bëgg sa réew fonk sa réew. mu Diop. Mhm. bëgg sa réew fonk sa réew sénégalais fi ñu toll nii damay wax ak ñu ñu jiite. Mhm. ak kenn ku nekk ci ñun dañu war a gën a bëgg suñu réew gën a fonk suñu réew. Mhm. gën a xam ne Sénégal kenn du ko defar ñu ñoo koy defar tey gis nga tey ñu ne Union européenne dafa tëj ay frontières am. mënatul dem mais tey Sénégal mënatuñ topp ci li ñuy ëpp lu ñuy lekk ceeb. ñu koy jëlee bitim réew. réew du dénkaane biiram. dañuy toog di wax ne Sénégal denc na lu ñu mën a dundal fii ak 3 mois. mais tey bu ñu amee problème bu ñu dem 6 mois kon Sénégal de kii donc ñun suñu wàllu bopp. dañu war a fexewaat li ñuy dundee yàlla nee na doomu aadama fa nga dëkk. la ngay dundee ma nga ci réew mi. la ngay fajoo ma nga ci réew mi donc dañu war a gëmaat suñu bopp. mooy fexe ba tey tubaab du ñu mën a ñëw duñu jàppale gis nga bi situation bi amee France France la tal. gis ngeen tey sunu nationaux yi li ñu indi contribution. jox ko président hmm. euh, les entreprises françaises joxe wuñu ko sax hmm. donc Sénégal hmm. ñun ñoo war a defaraat suñu réew jiite ko jiitu ci suñu njiiti réew yi ñi bëgg seen askan gëm seen réew am ambition pour développer la Sénégal mooy mënuma gëm Sénégal réew mu am ndox la fleuve Sénégal fleuve Gambie réew mi foo jaar ndox mi ngi fi suuf saa ngi fi donc ñun war nañ mën a béy li ñuy dundee waratuñ jéggaani ceeb di ko jëlee Europe fenn mooy tey li ñu doon wax autosuffisance alimentaire mhm. autosuffisance du riz li président waxoon mhm. mu bañ doon slogan mu war a doon une réalité ñu fexe fexe ba defar suuf si defar ko defaraay boo xam ne li ñuy béy ci ceeb mhm. danañ ko mën a indi fii soo gisee tey xale yi boo génnee ci trottoir yi ci mbedd yi ku nekk yore benn paquet mouchoir benn paquet ndaamaras xale yooyu war na leen mën a orienter pour que ñu dem

war leen jàppale tey soo xoolee Sénégal mënatuma d'accord les gros marchés ñi koy jox ay européens mënatul nekk dafa war a jeex dafa war a jeex ñu jàppale suñu nationaux yi mhm. parce que tey soo gisee terre soo gisee conférence Abdou Diouf soo mhm. gisee projet yu mag yëpp mhm. dafay dem sur le plan international ñoom ñooy ñëw gagner marché yi te tey soo xoolee tey sunu taux de croissance amul solo dañuy def neuf et quelques pour cent te population bi du ko sentir parce ñu koy def orange la. c'est des assurances. ñu dëkk Maroc dëkk assurance yëpp. la ñuy am ci économie yëpp dañ koy génne yóbbu ko seen réew. donc ñun koom-koom bi war nañ fexe ba jàppale suñu nationaux yi. boo xam ne lay taux de croissance bu ñu amee six wala sept et deux euh, points. mu doon loo xam ne askan wi panier ménager bi da ci gis seen bopp mu xam ne tey dooleel ñu mel ne ay Serigne Boub ay ñu mel ne ay Babacar Ngom. Mhm. ñeneen ak ñeneen c'est des champions Mbagnick Diop mhm. ay nationaux. Mhm. ñi xam ne tey li ñuy am dañ koy investiraat ci réew mi. panier ménagère bi di ko gis. dégg nga dafa war a yee autorités yi fi ñu toll nii. ñu war a jàppale noo nationaux nos champions. que tey lii ñuy defar fii. CSE gis nañ ko fii. avec euh, ñi amoon doole dañ dem ba ay gàmm yi feneen defar ay tali. donc ñuy jox la suñu réew mi. ñu jàppale suñu doomu askan wi wax leen doole. Mhm. Sénégal mun a dem ci kanam. Mhm. taxawaay bi am askan wi tamit. Mhm. mun a jàngat ci Covid bii. tey dama ne nit bu amee dëj. yàlla dafa ne dëkkandoo yi ñoo war a togg indil ki am dëj. mais tey nañ doon doxee ci Covid bi war ñu gis nit feebar ordonnance su mille francs te ko mu dee ñi def ñetti fan yàq ci un million. rey nag lu nekk ñu def ko loolu dafa war a jeex. Mhm. parce que tey million boobu ñu yàq ci troisième jour bi. Mhm. mënoon a doon loo xam ne capital buy mun a. Euh, dimbale kenn ci famille bi. Mhm. mu développé wu dans quelque temps. mariage yeeg séed lépp ñu wàññi yàq bi. jot nañu xoolaat ko daal xoolaat suñu bopp taxawu ko. te xam ne tey ñi am doole dañuy gestu ñi amul. parce que tey yàlla suñu borom. moo ko njëkk a digle. mooy ki am na dimbale ñu amul. mais tey war na ne tey les plus riches. son tey war na ne yàlla war na leen doole ci feebar bi. Mhm. donc vraiment nañuy xaw a euh, dellowaat. mbir yi mhm. Mhm. ni ko yàlla bëggee. àddina teguwaat ci ni ñu bëggee. ok mu nekkoon lu am solo alors tey euh, nga nekk ca diwaanu Grand Yoff tey Moussa bu ñu la doon wax tey lan moo gën a jàmb si Grand Yoff. Euh, dégg nañ ni euh, Grand Yoff euh, des fois bu tawee sax misaal la ñuy jox euh, dëkk bi wala quartier bi nekk ci problème alors tey li gën a jàmb tey Grand Yoff lan la. waaw d' abord damay wu askanu Grand Yoff fi ñu toll nii. Mhm. Euh, ma wu leen ci situation bi am. Mhm. Euh, taw amagul. mais tey boo jaalee Grand Yoff mënoo jaal fenn. Ah, waaw waaw boo jaaree marché monument. Mhm. ndox maa ngi ball. boo jaaree Grand Yoff bu mag maa ngi nuyu ci jumaa ji. ndox maa ngi ball. di mass wu askanu Grand Yoff mais dañuy wax suba suba bu tawoon Grand Yoff nan lay mel. donc nan lay mel donc situation bi c'est une situation très urgente mhm. te tey dañuy wax dañuy xeex Covid mhm. xeex Covid dafa am des ak xeex Covid dafa am ay ay ay ñu jël mbokk moom ci ligne bi asalaamaaleykum allo mbokk ñu ngi lay nuyu fay naa ah, tur bi ak Rewmi waaw yaa ngi ci biir maa ngi ci biir yaa ngi ci biir Moussa Fall mi ngi nii lan nga ko mën a jox comme kàddu euh, tur bi waaw man la Ndeye Amy Camara. Mhm. présidente mouvement bi. Mhm. mouvement Sénégal suñu yitte ak Moussa Fall moomu. Ndeye Amy Camara ñu ngi lay dalal bisimilah. Mhm. waaw Moussa. waaw Adja Camara maa ngi lay waa kay yal na yàlla nangu ziar. Camara Camara ñu lay ziar. <laughs> alors lan nga ñu mën a wax tey ci musa ah xanaa rek dëkk euh, invité bi ngeen ko invité. jërëjëf. invité ngeen gor. Hmm. invité ngeen ku baax. invité ngeen ku bëgg Grand Yoff invité ngeen ku jeex ci Grand Yoff te xam Grand Yoff <laughs> waa Grand Yoff xamuñu Moussa lu mu ñàkk lu mu am rek lañu xam ndax lu mu am rek bokk na koog ñoom <laughs> macha allah dama dugg rek en tant que bokk ci mouvement am <laughs> jiite xal jigéen ñi di ko ñaanal yàlla tey bàyyiloo xel waa Grand Yoff ci Moussa Fall bu baax a baax a baax man Moussa proximité laa koy woon <laughs> ndax tey boo ko invité ci Grand Yoff lu mu la wax rek xam na ko te am na fu mu koy teg am na dalil <laughs> kon nag Fall ñu ngi lay ñaanal hmm. bu baax a baax wér hmm. ak gudd fan hmm. merci da yàlla mottali sa mbébét ci Grand Yoff li nga bëgg ci Grand Yoff yëpp yàlla defal la ko merci ñun ñëpp nu fekkee ko merci yow Grand Yoff macha allah proximité xam leen bu baax xam nga grand bu baax te loo am bokk nga koog ñoom ma répété ko encore une fois. merci beaucoup. yàlla war nañ la bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax. merci. war nañ la teg bët bu baax a baax xool la ne la jàkk xam yaay kan. ak fi nga leen teg hmm. ñoom. Hmm. waaw ndax yow sa guddi sa bëccëg que mu muy naaj muy ngelaw muy tàng yow yaag ñoom. Hmm. waaw di sa tànk bi nag nëbbatu woo làqatu woo benn yoon nag loo xam ne bokk nga ko ñoom ci sa poos bi. looloo taxoon ma dugg di la xay kontaan nañu ci yow jërëjëf merci jërëjëf jigéen ñi kontaan nañu góor ñi jeunesse bi ñëpp kontaan nañu jërëjëf merci allah gërëm rek lañ la ameel sant ak njërëm rek lañ la ameel merci beaucoup Adja ci grand yi kontaan nañu loolu sëñ bi ah, kontaan nañ trop te liñ ko invité jërëjëf jërëjëf ñoo ko bokk merci kontaan nañ ci yéen kaw ci kanam merci Adja ci kaw ci kanam rek merci jërëjëf amiin ak salaam rek jërëjëf Adja jërëjëf merci beaucoup merci ñoo merci kontaan naa ci woote bi kontaan naa ci woote bi bu baax a baax merci Omar ku baax ku baax la waaw ndax ak mouvement yi nekk ci opposition bi ñëpp yow am yoo xamoo ak bañ jërëjëf sant ko nga ñu koy sant di ko gërëm dinañ la may benn temps après nga sant gërëm waa Grand Yoff yëpp. alors ñu ngi woon ci benn point bu am solo yaa ngi ko doon wax bu nawet bi dëgmalagul waaye tey kuróom ah Grand Yoff doo ko xàmmee sous les eaux Grand Yoff et sous les euh, bi ah yombul non non yombul Grand Yoff dañu am ñaari problème yu mooy ba si njëkk assainissement commune yoru ko état moo ko yor mhm. vraiment dañuy ñaan le président de la république mu jël di ñaan le ministre mhm. di ñaan le plus rapidement possible. mu taxaw régler problème bi nekk Grand Yoff. Grand Yoff ndox maa ngi ball fépp. gis nañ ñu ngi doon def curage. non mais ndox maa ngi ball fépp boo demee Grand Yoff boo génnee léegi dem marché monument nga dem Grand Yoff bu mag dugg ci mbedd Grand Yoff yaa ngi gis ndox maa ngi jaar fu ne. Mhm. nest pas donc loolu dañuy laaj président ak le ministre tey ku ñu munti déglu. dañuy taxaw ci problème yi ñu réglé ko parce que suba suba bu tawee Grand Yoff kenn dootul mën a génn. moo gën a jàmm parce que problème assainissement la du problème maire xam nga assainissement c' est c' est c' est lourd. Mhm. état moo ko yor bokkul ci non bokku ci. Mhm. donc dañuy ñaan état mu taxaw ci. Mhm. et puis de mënuñu comprendre ñaan le ministre de l'eau di ñaan le président de la république. ñu taxaw ci régler problème bu ndox. parce que tey mënuñu gis Grand Yoff nekk ci biir capitale. 19 communes yi Grand Yoff amul ndox. dangay ngay dugg Arafat guddeeg bëccëg nit ñaa ngi yore ay bidon 10 ay siwo di dugg biir HM Grand Yoff. ndox leen ko non amul ndox. surtout Arafat dañu war a taxaw rek le problème ndox bi. mais on sent on pense que on est dans un village qui fait 6000 euh, kilomètres de Dakar. Hmm. on est Dakar on dans le carrefour de Dakar. nañu régler problème dox bi on peut pas dire que nit ñi dañu respecter mesure barrière. amuñu ndox dëkk bi di ball ay ndox <laughs> non mënu comprendre ça c'est c'est c'est des problèmes d'hygiène primaire mhm. à régler. ndax yéen yéen a ngi ciy dox ah, seen voilà dañ ci mën wax suñu mhm. amee occasion yu mel nii. Mhm. ñi woo état woo le président de la république. ñi taxaw ci parce que tey dañu war a xoolaat. le canal bi ñu def au niveau de la mosquée de la grande mosquée de Grand Yoff si y a euh, on salue parce que bi muy ñëw Grand Yoff inondation yi gënoon na métti. Mhm. ba def nañ effort dafa fa ay investissement mhm. mais c' est des yoo xam ne dañ ko war a xoolaat mais je pense que actuellement daal euh, Grand Yoff moom on a deux problèmes très urgents mhm. c' le problème d' assainissement euh, l'eau usée ça coule partout à Grand Yoff on a un problème do l'accès à l'eau ça c'est c'est c'est primaire. donc euh, vraiment dañu war a ñaan état. mu taxaw ci quoi. Mhm. leader bi nga doon est-ce que dem nga tey euh, gis maire bi euh, wax ko li nga xam ci solution wala lenn xelal ko nga ne ko nii lañ war a jàppee wala nii lañ war a adapté woo mais est-ce que tamit bu ngeen bu leen déggee ngeen di wax di ŋàññi si kii problème Grand Yoff bi du xaw a métti mbir bi jege ngeen ko su proposer ko ay solution waaw non mais xam nga daf ci am problème yoo xam ne si ça concerne le maire directement. Mhm. on peut parler au maire. Mhm. tout à l'heure je j'ai pas lancé un appel au, au maire parce que le maire il n'a pas les moyens de régler ces problèmes-là. Parce que c'est des problèmes très lourds en investissement. C'est un mhm. problème d'assainissement. Mhm. Je lance un appel au président de la République. noo ko au directeur de l'ONAS mhm. pour que mu ñëw régler problème bi. c'est des problèmes qui concernent la mairie. bu ñu taxawee ci rajo on va faire un appel au maire. mais peut-être le maire ne va pas euh, croiser les bras comme ça. il va prendre des peut euh, lu mu mën a def moom tamit on lance un appel. bi mooy peut-être euh, la la la a les moyens de prendre deux ou trois camions. Hmm. s'il faut curer quelque part ou évacuer de l'eau mu jël ñett camion ñeent camion manque ko ndox bi dem peut-être su nekkee c'est des solutions. Euh, yoo xam ne urgence yu ñu mais il faut avoir des solutions structurelles pour régler ce problème d'assainissement à Grand-Yoff hmm. et donc il faut que état bi jël ci ay mesures parce que il y a des dañ ko war a régler boo demee eh, ay Nord Foire Zone Foire dans les années 2013 trouvé il la foire Dakar là en France na mhm. problème crucial d'assainissement mais ils ont réglé le problème pourquoi pas à Grand Yoff ils vont pas régler le problème il faut mhm. qu'ils règlent ce problème là ok naka nga gisee tey gestion maire bi ma Madiop Diop moom mi nga xam ni depuis 2014 mi ngi ci bopp mairie bi tey yow naka nga gisee gestion am ci ci bopp maire bi non c'est un fils de Grand Yoff comme je mhm. taxaw fii tey di def bilan maire non je veux pas faire son bilan. Mm c'est les grands F fois qui ont élu la liste taxawu Ndakaaru. Mhm. man j'étais candidat. Okay. j'avais un programme bu ma proposé grand Yoff Foy. Mhm. taxawu Ndakaaru avec Khalifa Sall amoon programme ñu proposé. Mhm. ils ont gagné Pape Modiop est maire. mais il va déposer un bilan. il va déposer un bilan koy xaar. c'est ñu ngi koy xaar bu déposer un bilan mais danay xam ci juróomi at maire grand Yoff at bu jot ñaata la am ci budget. ñaata la am budget réel. Mhm. parce que tamit mën nañ la nattal 3 milliards. Mhm. at bi jeex fekk yow 1 milliard jot am ci xaalis. Mhm. parce que budget 3 milliards c' était léegi nag ñaata lañ ko nataloon ci budget ak chaque année ñi xam budget réel bi chaque année ñaata la encaissé pendant 5 ans. ci juróomi at yi ñi xam li mu jot ci gafa ci ci ci alal. lan la ci def ak lu mu ci deful. léegi nag Grand Yoff yi ñoom ñoo faloon xalifa Sall. ñoom ñooy taxaw. xool lañ faloon xalifa Sall lan la fa Khalifa Sall def ak lu mu fa deful. Mhm. man candidat laa woon. tey loo fa daj. mais man tey def candidat la woon en 2014. Mhm. Moussa Fall ba fii ñu toll nii. Mhm. Grand Yoff bi ma bëgg amagul man. mun naa wax loolu bi nga gis nii. man man bi ma bëgg man amagul. mooy lan yow man li ma bëgg mooy. Grand Yoff boo xam ne ku fa dugg. da ngay xam ne c'est une commune moderne. c'est une commune moderne. waaw c'est une commune très moderne. ci yenn fànn nga nar ci yenn mu. environnement. Mhm. ci problème mu euh, tëggaat Grand Yoff mhm. ci taxawaay boo xam ne ci naka ci naka mooy tijji. Mhm. mairie bi ba mu doon nga xam ne doomu Grand Yoff bu ci nekk. dina ñëw dugal sa loxo ci Grand Yoff parce que tey loolu mooy suñ taxawaay parce que tuñu programme la ñu am. bu leer boo xam ne jóguñu rek di tàllal suñu loxo. di wax ne dañoo bëgg doon maire. wala dañuy uti maire non loolu taxul ñu jóg. li am solo mooy tànk ñi yàlla mi ngi may bakkan ñi noyyi. danañ am ambition pour Grand Yoff te suñu ambition pour mooy fexe. ba xeexal Grand Yoff ba mu melokaan ba Grand Yoff war a mel. ñi am ko. donc nag bilan moom du ma ko def ci maire. maire li mu def ak lu mu deful. population bay faloon Khalifa Sall yàlla def conseil municipal bi fal Pape Modiop ñoom Grand Yoff waaye bu ñu ci tolloo ñooy waxaat ne ndax la leen maire liggéeyal doy na leen wala doylu leen mais bu ñu fa tollaatee ñun tamit ñu ngi dox di wax mais danañ am programme bu ñu tegal Grand Yoff mais dootuñu wax Moussa Fall xam nga il faut que ñuy xalaat ne man je me fais pas de maire parce que su ma defoon fixation poste de maire kese kese. j'ai arrêté de faire de la politique. man j'étais candidat en 2014. face à Khalifa Sall face à Mimi tous les deux proposé nañ ma pour ma dugg seen liste. j'étais dans réew mi coordonnateur de Rewmi responsable départemental. on m'a proposé d'être avec Khalifa mhm. mais Khalifa dafa amoon projet de société man ma am sama projet de société. Okay. et j'étais responsable local. Mmh. je me dis quand le président Idriss Seck m'a dit je dis non man bàyyi ma dem élection. parce que mhm. moi responsable la damay dem natt sama bopp xam li ma bëggal Grand Yoff. Mhm. ma defal ko Grand Yoff. fexe ba man res euh, li ma xam. ak samay relation ma mun ko indi pour Grand Yoff jëriñoo ko. mais loolu la am mais fi ñu toll nii ci loolu la ñu taxaw. Euh, incha allah. Euh, te dañuy lancer appel président de la République. Mhm. dans un pays. il faut qu'on respecte les institutions. il faut qu'on respecte le calendrier républicain. looy sàkku ci. ah oui oui non il faut qu'on respecte parce que élection. Mhm. depuis deux mille dix neuf lañ ko waroon mhm. mars waaw juin la yokkal na leen at. mais tey supposons monsieur Dramé. su ñu toogee ba deux mille vingt quatre président mu ne day prolonger mandaam deux ans. comment les gens vont réagir. Ah, dina doy mais actuellement yokkal na maire yi. opposition dégguñu kenn wax. ñëpp ñu ngi toog mais na on s'attend que président bu yokkee mandat am 2024 ba dina léegi 2026 élection présidentielle mais bu kenn coow parce que ces maires ne sont plus légitimes parce que askan bi moo leen faloon pour juróomi at juróomi at yi jeex nañ mhm. ku fa toog Macky Sall moo la fal parce que décret Macky Sall moo la fa teg askan tegatu la fa donc il faut que ñu respecter askan wi élection 2021 mhm. mois de mars ñu def élection loolu ngay sàpp yow mais moo war a am. Mhm. du lu ñu parce que il faut qu'on respecte le calendrier républicain. Mhm. mënuñu fal ay nit yoo xam ne. est-ce que maire yi pare nañ mais du mais du question bàyyi. c'est mhm. le président. qui est gardien de la constitution dafa waatoon mu ne day yore constitution. dafa am ay règlement dafa am ay droit. donc il faut qu'on respecte. vraiment le calendrier républicain. il faut qu'on aille à ces élections on peut pas repousser des élections comme ça. parce que il faut que mu am une politique participative et inclusive. xam nga loolu lan moo koy indi. jiite. askan wi ànd ci moom lu maire def askan wi gis ci boppam mais tey bu nekkee maire yi jeexal nañ am na dëkk yu bëri yoo xam ne askan wi gisutu seen bopp ci maire yi yàkkamti euh, élection jot ba ñuy soppiwaat indi fa non non non waxuma grand je dis beaucoup de trucs mhm. donc population grand moo xam loolu mhm. mais ñun dañuy bëgg rek su ñuy wax on parle dans le cadre général bien sûr euh, élection député bu jotee mhm. il faut ñu def ko élection législative bu jotee ñu def ko bu nekk ak maire def ko dañ def ko et les gens qui sont au la démocratie n'a pas de prix. Mmh. Il faut qu'on aille chercher les moyens pour organiser ces élections en 2021. Mmh. Qu'on ne pas au mois de mars pour nous dire que on va repousser les élections parce qu'il y Covid qui était là. Non non non, il faut que ces élections pare nga bu doon suba. Non ñun pare non ñun xam nga élection mhm. du pare nañ wala pare wuñu. Mhm. ñun dañuy def politique. ñun dañuy politique. dañuy jàppale président Macky Sall. Mhm. ki dugg léegi c'est un président de mouvement en a plusieurs qui sont en train d'écouter peut y en plusieurs. mais Grand Yoff doy waar balaa mu lay kii Grand Yoff bëri na leader yi nga xam ni. yow voilà ak Khalifa ak yeneen ak kii mais yow est-ce que tey tey dangay ngay euh, dëggal sa bopp ni da ngay samp sa ndënd. non man sama ndënd bu ma ko sampaloon. Mhm. askanu Grand Yoff ñoo koy samp. mais man tollatuma ci Moussa Fall pour samp ndënd. du loolu man doxatuma ci ay bëgg doon maire. mais dama bëgg. fàttali am nga conseil. ci euh, mairie ba waaw waaw waaw maam mhm. Diop. Mhm. sama liste la la gagné maam Diop de bokk gis-gis. waaw donc man ci dynamique bi ma nekk dama koy wax expérience boo ko amee boo amee jaar-jaar da am expérience. Mhm. Moussa Fall nekkatul te man damaa bëgg doon maire no doxatuma ci loolu. ci li may dox mooy doomu Grand Yoff yi nga xam ne amal nañ njëriñ Grand Yoff ku ci nekk yaa ngi laqatu sa gox. bii PDS moo yore mairie bii PS moo ko yore bi kii mais situation bi changé wul mais doomu Grand Yoff yooyu ku ci nekk toog sa ruux kii dugg léegi président mu Omar Faye mun na doon maire Grand Yoff ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. mais man j'ai pris mon bâton de pèlerin. je di que élection présidentielle jàll na man président Macky Sall li ma waxoon ci saalam bi ma reçoit dama ne ko élection député lañ def danañ xeex ba 8000 voix yi la taxaw Ndakaaru gagné woon danañ ci dugal suñu loxo ba mu wàññeeku. Hmm. te 8000 voix élection présidentielle am na 5000 voix. Okay. ma ne ko woon 2024 incha allah da nga gagné yàlla rek moo xam 2024 gagné na te dama ko réitéré ci permanence en euh, LDMPT. Mhm. conférence de presse Benno Bokk Yaakaar ma ne président Macky Sall gagnera Grand Yoff mhm. parce que on travaillera danañ liggéey pour wan li président liggéeyal Grand Yoff parce que Grand Yoff li fa amoon mooy un vote affectif dañuy votel doomu Grand Yoff may leen loolu baax na mais nañ votel tamit ki amal njëriñ Grand Yoff te président Macky Sall indi commissariat mhm. indi taxaw na ci euh, assainissement def na fi leneen ak leneen bourse familiale yi Sénégal grand yi am nañ ci lu bëri. donc kooku tamit bu bëggaatee beneen mandat war nañ ko mën a jàppale mu am beneen mandat te président Macky Sall bilan kese du ko fal dama lay wax li ma waxoon. dina ànd ak ay doomu Grand Yoff yoo xam ne nañuy xoolee Khalifa Sall noonu lañ leen di xoolee te incha allah dina gagné. te incha allah Grand Yoff Khalifa <laughs> Macky Sall gagné na ko. waa kon ñun wàccoon nañ ak président Macky Sall Macky Sall moo des ak ñun waxuma man de. parce que tey Macky Sall président Omar Faye woote na keneen woote na keneen woote na mais président day politique président Macky Sall dafa ñëwoon am ambition pour amaat beneen deuxième mandat mais tey bu mu amee deuxième mandat ay gor ñoo ànd ak moom xeexal seen bopp jël seen alal muy Omar Faye mi ñu wax yëpp amul kenn ku ci jot cent franc budget de campagne président joxul nit campagne xaalis dañoo xeexal suñu bopp wër dugg koñoo koñ mun naa lim Je prends Cheikh Tidiane Diatta, je prends Omar Faye, je prends beaucoup de gens. Mhm. Je cite ces gens, qui ont lutté. je fais pas la je dis. Mhm. mais Grand Yoff. Mhm. tey maa ngi lay wax problème yi fa am. mais problème yi fa am kon président. dafa war a gestu doomu Grand Yoff waxuma pas man mu gestu ba. au sein de l'APR am na ñu war a au sein des alliés am na président am na ñu war a parce que tey jàpp naa ne. président a oublié Grand Yoff. je dis oublié ma a oublié Grand Euh, au niveau des parcelles, il y a un ministre, il y a un PCA, il y a un ministre d'État, il a tout. Grave, il n'y rien. Il n'y directeur qui était là, il y a Donc on lance un au président. Mhm. Nous faisons de la politique. Hein. Le président a des ambitions. am na ko donc dafa war a retourner maintenant xool jigéen ñi nekk Grand Yoff nekk biir APR nekk ay alliés xool góor ñi fa nekk ñeneen mu promouvoir ay doomu Grand Yoff pour ñu mun a taxaw jàppale askanu Grand Yoff gën ko jàppale ci liggéey bi parce que ki nga xam ne jaa mi ngi lay jàppale joxoo ko dara mi ngi rey tànk tubéyam mais kooku tey boo ko jàppalee mu liggéey te tey président fi mu toll nii nit ñooyu ñoo ko war a entourer mi ngi wax ne mi ngi tëggaat gouvernement. Hmm. parce que dafa am ñoo xam ne dañ fi nekkal seen bopp am ñoo xam ne askan bi lañ fi nekkal. am na ay doomu grand yoo xam ne tey bu leen président gesso hmm. danañ jàppale seen askan jàppale président waxuma man hmm. man je vis pas de la politique. moi depuis 2006. maa ngi def politique. amul benn député. amul benn ministre. amul benn PCA. bu ne Moussa Fall mas na fëgg sa bureau. ñaan la dépense. man masuma ñaan kenn ma masuma jox cent franc mhm. sama alal laay def donc man ñaanuma pour polisan fal Moussa Fall dama xam ne mhm. ku mel ne Omar Faye ku mel ne Cheikh Yane Diatta ku mel ne ñeneen ak ñeneen mhm. ñoom laay li biir APR ku mel ne Mora ñeneen ñoom ñëpp président war a leen fal war a leen jox ay ndooma tànk parce que yàgg nañu xeex pour président mais tey président dafa falu mais fàtte na Grand Yoff ah. ah oui oui da day lancer un appel nag ci président mi parce que Grand Yoff c' est une quartier. mais yéen jubóowu leen seen biir problème bi non non non non pas ñun. Ah, ah. affaire ngay wax. waaw ah, seen biir non affaire jubóo nañu sax léegi. <laughs> il y a plus de problème. <laughs> on est tous dans la même famille. la famille du président. <laughs> on fii non non tout ça c' des querelles. Mhm. de positionnement. Mhm. moi je suis pas de l'APR. moi j'ai un mouvement Sénégal Sunu Yite. Mhm. moi je suis un allié du président de la République. président Macky moom laa jàppale fal ko te incha allah rabi bon damay xar sama tànk tubéy ba fii ak deux vingt quatre que président réussir man loolu mooy sama tànk tubéy man ànduma ak opposition man président laa àndal donc man la may añee li reeree di ndékkee man yàlla suturaal na ma suturaal na ñeneen mais politique la def man kenn jébuwul ci Macky Sall pour alaxira hmm. non non non est ce que dañuy wax boo demal sa sëriñ nga ne ko jox naa sama bopp fii ak fële <laughs> Macky Sall fii la ñuy ànd dafa am lu mu bëgg ñun Sénégal moo ñu ñor. tey nag gëstu grand yow. Sénégal mooy dafa war a doomu gan doomu grand yow yi. c'est dafa jot parce que tey li may wax c'est dans son intérêt. parce que pour mu gën a mun a téye coalition. Mhm. il faut que mu jàppale coalition bi. Mhm. parce que tamit dañu dem ci ay échanges yoo xam ne. Mhm. mooy il faut s'attendre à tout hein. élections yi ñu jëm. c'est des élections. est-ce que demee en dispersé ah non les gens se les, les gens se parlent. Mm -hmm. moi qui vous parle. Mm -hmm. suis pas resté tranquille man depuis deux mille dix neuf après les élections présidentielles. yaa ngi ci terrain jot naa seeti plus de quinze personnes. ci ñi nga xam ni sont dans la dans la mouvance présidentielle. Mhm. parce que on pa dañuy dem ci élection locale. on part pas dans des élections présidentielles nous on est dans une alliance ku ci nekk gisoo sa bopp ci ànd ak Macky Sall donc du ñu toog ñun ba élection locale jot ñuy wax président kii fi teg dem leen ko. du ñu nangu loolu non non on, marchera pas comme ça. Mhm. on fera une liste face au président s'il le faut parce que ce sera pas face au président. Mhm. mais les aspirations des Grand Yoff Grand Yoff li ñu bëgg. c' pas parce que président mooy toog palais mu ne diw laa mu doon maire. Mhm. Grand Yoff non Grand Yoff ñooy fal maire. man Moussa Fall qui vous parle. on est en train de travailler pour mettre un cadre politique à Grand Yoff. Okay. et si ce pas ce Covid-là ce cadre est déjà lancé. <laughs> j'ai pris mon bâton de pèlerin. j'ai mooy frustré yi. non c'est pas des frustrés. Mhm. non on se prépare. maa ngi lay wax léegi problème ndox. Mhm. maa ngi lay wax léegi problème assainissement. ak yeneen. Mhm. mais Grand Yoff manque de voix. il faut qu'il y ait des personnes des Grand Yoffois qui vont porter les problèmes des Grand Yoffois. Okay. parce que tey Grand Yoff am na problème ndox. am na problème assainissement. s'il y a un problème à Grand Yoff kan mooy génn waxal Grand Yoff waay ce cadre là d' abord pas un cadre pour aller aux élections c' est cadre boo xam ne cadre de concertation concertation où les fils de Grand Yoff se concertent y a cadre qui est doomu Grand Yoff yi nga xam ne mun nañu toog autour d' un table d' une table pour ñu waxtaan su problème ndox amee ñun mun nañu toog def point de presse wax alerter le gouvernement pour ce problème qui intéresse les Grand Yoffois mun nañu bind c'était le ministre ou le directeur en question mais mu bañ doon Moussa Fall en tant que président mouvement mais mu doon un collectif de de de des fils de Grand Yoff qui vont parler pour défendre les intérêts des Grand Yoffois et maintenant waxaguñu waxi élection mooy cadre bi képp kuñ ci woo on est plus de quinze personnes on a fait quatre réunions mais ce cadre là si on peut le en coalition politique on le fera mais dañuy fekk nag mu doon li nga xam ne président danañu déglu mais ñu xel parce que tamit mhm. ah, ñi nga xam ne tey ñoo séq cadre boobu mhm. man daw ma ci kenn ne la kaay fal fi nga toog Omar Faye yaa ngi xar sa tànk tubéy guddeeg bëccëg boo demee samedi këram mi ngi fees Cheikh Tidiane Diatta mi ngi rey boppam avec ses moyens propres Omar Faye keneen ak keneen may la booy li ngay def ma koy def keneen di ko def ku nekk sa ruux hmm. suñ ko boolee moo ëpp solo tu prends un gars comme Badara Kébé hmm. c'est un ancien footballeur qui est Grand Yoff mais il fait un travail extraordinaire hmm. avec ses propres moyens mais ces gens-là ils sont ils sont pas écoutés okay. calmer booy wax ak ñoom ba booy dem mais voilà les gens qui sont trop proches des populations. ñooñu déjà bu ñu amee ay ndomba tànk. Mhm. mais dañuy jàppale askan wi. mais tey ñun bu ñu dajaloo. Mhm. problème ndox am. Mhm. ñu jooy ko dem seeti directeur bi ministre de l'eau su problème assainissement amee ñu dajaloo dem seeti ministre de l'assainissement. qu'il y ait un cadre. c'est pas pour venir. derrière Moussa Fall non Omar fay sama nawle la Cheikh Diane Diatta Badara ñoom ñëpp samay nawle lañu. Mhm. Badara il n'est pas il n'est pas encore venu assister à ces réunions. ok yaa ngi koy woo quoi waaw mais je l'appelle je l'appelle je j'ai parlé. Mhm. mais moi l'opposition je suis allé les voir. man opposition sax dem na seeti ñëpp du ma tudd nag parti tey fii. mais opposition bi ñëpp laa seeti sama tànk nee na booy mhm. kaa leen toog ñu péncoo mhm. Grand Yoff dañ ko war a péncoo kon Moussa Fall ak ah ñu ngi ah, defaru ñu ngi waxtaan ñu ngi defaru waaw ah, parce que tey lu kenn mën fu ko ko dax Khalifa Sall su ñu woon samp ndëndëm mhm. sol mbubb mu verte 2014 ne man PS maa bëgg falu Khalifa Sall du doon meer non non non Khalifa Sall dafa ñëw créé taxawu Ndakaaru man parti bi ma yoroon réew mi daf ko xaaj en deux parties am ñu ko jàppale waa Modou Kara jàppale ko PDS mu xaaj ko jàppale ko waa UCG Patrick Balde jàppale ko. loolu la booloo ay nit. ay doomu Grand Yoff ñu ànd. dem gañe mais tey ñoom ba ñuy ànd est-ce que xamoon nañ Pape Madiop mooy doon maire kenn xamu ko woon. Mhm. kon man damay wax ne. bu ñu jaatalee ñun. Mhm. doon benn bloc ñi ànd. bu ëllëgee mhm. bu ëllëgee ka war a gañe yàlla ne kii la ñu fal ko. man daal damaa fexe. bëgg naa sama ambition personnelle. mooy équipe bi nar a doxal Grand Yoff ci juróomi at yi di mu saa Fall bokk ci. parce que bi li ma am. xam ko yéene naa ko Grand Yoff nag dafa jot. parce que tey yàlla may na ma. si sama répertoire ay nit yoo xam ne ñi ngi ci secteur privé bi ñoo xam ne mun na bëgg nañ jàppale Grand Yoff pare woon nañ pour jox seen loxo Grand Yoff pare woon nañ pour kenn ku ci nekk am loo indil Grand Yoff n'est-ce te loolu am na ci solo parce que li may laaj dama ko xam depuis 84 maa ngi liggéey ak Mamadou Diop ville de Dakar. Mhm. liggéey naa ville de Dakar. Mhm. liggéey ak Khalifa Sall ville de Dakar. Mhm. donc man xam naa luy gestion waaw waaye xam naa ko. alors ñu ngi ci euh, njeextalu émission bi daanaka jeex na ba pare tey ñu bàyyi laa kàddu gi rek nga sant gërëm ñi nga xam ni dugg nañ fi woote ak waa Grand Yoff yi nga xam ni ñoom ñoo la doon may nopp ñàkkul ni itam di nga fi delluwaat. bu ñu amaatee yeneen échéance. wala bu élection yi euh, jotee. dina fi ñëw itam euh, ñu xool li nga xam ni moom programme bi nga xam nga. moom nga bëgg a jox waa Grand Yoff ñu bàyyi jox la rek moo di sant euh, d' abord euh, waa mi FM encore le président Magic mhm. di la sant monsieur Dramé ak toute l' équipe de Rewmi FM ak auditeurs yi nga xam ne chaque dimanche ñu ngi kàll émission bi émission bu am solo la mhm. euh, donc di gërëm askanu Sénégal yëpp mhm. ñi koy déglu peut-être ñi ngi sax fu nekkul Grand Yoff ñu ngi nuyu ko nekku ci nekk di gërëm nag askanu Grand Yoff di gërëm vraiment tout les membres et sympathisants du mouvement Sénégal Suñu Yitté parce que doole jën ndox la ñoo ñooñu dañu ànd ak man depuis des années mais sans rien demander gis nga kii dugg léegi mooy ajaa Ami Camara da ci def alalam da ci def jot jotam maa ngi koy nuyu di ko gërëm bu ma ko nuyoo nuyu naa jigéen yëpp di nuyu le président Omar Faye vraiment président mouvement la mais ni mu waxee c' est le cœur qui a parlé. donc c' est un frère moom tamit je le salue. Mhm. Euh, di nuyu mooy ku mujj gi. xool ko allo salaamaaleykum. salaamaaleykum rahmatullah temps bi jeex na il est 17h may nañ la deux minutes nga lan nga ñu mën a wax ci Moussa Fall. waaw xanaa rek di rafetlu jotaay bi. jërëjëf man la sëñ Mbacke représentant euh, Sénégal suñu yitte ci diaspora bi. Mhm. waaye daal vraiment. Mhm. Mhm. ñu ngi rafetlu teewaayu kooku. Euh, di Moussa Fall di président bi. Eh, di rafetlu taxawaayam bi mu taxawu ci Grand Yoff mhm. yemalewu ko ci Grand Yoff rek ak di ñu gëstu ci ñun wet gi nu féete mhm. ndax eh, tournée bu gàtt ba mu fa defoon rek mhm. dégg nga ñun ñëpp daal am na ci loo xamante ni gis nañ ci lu bëree bëri dégg mooy ay un mois rek avant Covid bi di commencé kon nag ñun ñu ngi koy di rafetlu taxawaayam. Mhm. dégg nga di ko ñaanal yàlla yàlla dooleel ko. Mhm. dégg ba fu mu bëgg a yóbbu mhm. mu yóbbu ko li mu wax lépp ci affaire politique bi. bu nu àndandoo ñun ñëpp ñoom ñëpp daal. nii ñu xee doon defee ba parrainage yi ko defee mbas mi jóge fi. jërëjëf jërëjëf loolu daal laa amoon rek lu ma ciy sànni. jërëjëf di leen sant nag di leen gërëm rek di rafetlu baax a baax rek. merci beaucoup jërëjëf Moussa Kon. donc dama doon gërëm. Euh, ci Adja Omar Faye di gërëm xaban mhm. xaban c' est un jeune dynamique moo yore communication bi mhm. Anta Kandji responsable des jeunes fii xaban mhm. di gërëm mon frère Ablaye Ndiaye donc su ma leen tuddee sa à dire c' est la dama tudd naa mouvement bi yëpp mënu ma ci jaar di gërëm nag askanu Grand Yoff ñëpp ñëpp vraiment di wax ne euh, vraiment li ma fi wax c' est pas un appel de de de de des frustrés non c' un appel parce que nit booy ànd ak moom sa gémmiñ xasoo sa doomu ndey moo la koy franchement moi je lance un appel au président de la république mu gestu leen mu mu mu Grand Yoff pas nga xam ne ñi ngi ànd moom di ko jàppale mhm. mu gestu leen parce que mun naa lim ay nit ci biir mhm. affaire yoo xam ne ay du jeex mu ne leen jàppale mhm. que président Euh, li nga xam ne tey ñi ngi ci jëm. Mhm. mu gën ci taxaw. taxawaay jàppale askan wi. Mhm. fexe tey li xew. Mhm. Eh, émission bi may ñu ko. mënoon nañu wax ci mbiru suuf si. ci mbiru suuf si bari na. waaw mais yoon waxu jeexul yoon jeexu si. incha allah di gërëm ñëpp di la gërëm. di santaat waa Grand Yoff. di ñaan président daal mu gaaw jàppale ñu. Uh-huh. ci problème mu inondation yooyu am te usé yi indi ko. taxawaat ci ñu ndox di gërëm ki nga woote mooy Cheikh Mbacke Mboup. nekk Espagne. te fi joli tamit il était impacté mi ngi Sénégal. moom tamit dafa nekk membre ci mouvement bi. di mhm. jàppale. Mhm. Euh, di ci def dooleem. di gërëm ñëpp daal di sant ñëpp di wax ne daal lu luñ ci wax. Mhm. ci loo xam ne juumte am na ñi xam ne nit. Euh, mooy doxee noonu. mais defar rek ak wax lu rafet moo ci nekk. di gërëm tous les responsables de la l'APR. mouvance présidentielle di gërëm ñëpp di sant ñëpp. di wax ne ensemble peut-être nous allons gagner les les les les les. des échanges futurs allah. mbokk yi sant leen gërëm leen ci seen àndaax ñun tey euh, ki nga xam ni moom moo di Moussa Fall nekk président mouvement Sénégal sunu yitte moom lañ ci doon dalal jox leen dig daje beneen dimanche ak beneen invité fii ci gox bi ci rajo Rewmi FM.